mbokk yi ñu bokk sant yàlla buur bi tabaraka wa mi ñu may fanaanug jàmm ñu di ko ñaan mu may ñu kendalug jàmm xam ngeen ne bés tey di yomul jumaa bu ñu yàlla bàyyee fee ñu fekkee ko tal ko dinañu ànd ak yéen wittalante ki ci njëriñ ba bés bi làmboo doy na rek ñu ne bés bi nga xamante ne buur yàlla tabaraka wa taala moo ko jagleel suñu yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam waaye xëytu yenentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñomit ñu am ci particularité bi nga xamante ne bu ñoom amul wenen xeet ba yàlla jagleel binimel ñu bokk sant yàlla buur bi tabaraka wa mi ñu may occasion bi ñu mën a dundu njëriñ ba nekk ci bés bi nga xamante ni mooy yomul juma mbokk yi leen bokk sant yàlla buur bi ñu may ñu jëfandikoo xéewal ya nekk ci moomelam moom yàlla suñu borom subhaanahu wa taala bokk na ci xéewal ya nekk ci moomelam mu duñu wax ci alquraanul karim ci suratul ibrahim wa min kulli ma sa'altumuh wa in bi mu ngi ñuy won ne buur yàlla mooy buur bi nga xamante ne moo ñu jox moo ñu may moo ñu yenkeewal lépp lu ñu ko soxal lépp luñ ko ñaan defal nañu ko waaye bu dee dañ fay nekk naan dañoo géem a lim dañuy géem a xayma xéewalu yàlla yi ci suñu jëmm yi buur yàlla ne ñu du ngeen ko peeg du ngeen ko mën a matal du ngeen ko mos a def sax ba koy matal ndax xéewal yi nu ñu bare waaye moo tax mu ne ñu la in shakartum la azidannakum bu ngeen di sant xéewal yi ma daldi ko yokk ma daal leen ko defal la kawe seeni njort yal nañu yàlla boole ci ñi koy sant ci xéewalam yi waaye nañu yàlla boole ci ña sant ci xéewal yam leen di xéewal saa su ba tax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ñuy wax ne xéewal ba toll nuy xéewalu nelaw keroog bu ñu ko buur yàlla yombalee bañ ko jëfandikoo lañu war ak lañu war a def mooy ñu sant yàlla ci xéewal woowu ba tax na mu ne ñu képp ku yàlla may nga jëfandikoo xéewal yam la xéewalal mu doon xéewalu nelaw boo yeewoo ci nelaw woowu yow jullit bi la nga war def mooy nga sant yàlla ne alhamdulillahi alladi ahyaana baada ma amatana wa ilayhi nushur moo ne mboolem xeetu cant yu kawe yi ñeel nañu yàlla mboolem xeetu cant yu matale yi ñeel nañu yàlla ndax mooy buur bi nga xamante ne moom ma delloo sama ruux gannaaw bu mu dogalee ci sama jëmm ji dee bu ndaw te ma doon nelaw dee bu ndaw ba mu namm ci sama jëmm ji te mu doon nelaw ba ma doon nelaw waxtu su néew ci ginnaaw ginnaaw si buur yàlla delloo ma sama ruux waaye nag bu ma jeexalee dund bi du si kenn lay dellu du feneen fa may dellu fudut fa moom yàlla moo tax nga dégg ci njeexantalu ñaan bi wa ilayhi nushur ci moom yàlla la ñuy yeewoo ci moom yàlla la ñuy ximbale ko keroog bu ñu faatoo yal na sore waaye yal nañu yàlla tàggatal suñu xol ak suñuy làmmiñ ñuy tudd baat yi saa ñu yeewoo ci nelaw sant yàlla delloo ko njukkal ndax mu bindal ñu ko yiw ci suñu téere yi jëf amin ya rabbal alamin mbokk yi ñuy wax mboolem auditeurs yi fu ngeen mën a nekk fi mashariki al ard wa magharibiha jumaa tayiba mubarak nasalullaha an yataqabala minna wa minkum salihul amal yal nañu yàlla boole nangul lépp lañ ko ñaan ci bésu yowmul jumaa bi lépp luñ ko jaamu tamit yal nañu ko buur yàlla nangul amin ya rabbal alamin mbokk yi jëlee nañ xadis bi ci xadisu abi hurayrata radiallahu anhu nee na qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man tatahara fi baytihi thumma masha ila baytin min buyutillah li yaqdiya faridatan min faraidi llah kaanat xatuwatuhu ixdaahuma taxuttu xati'atan wal axir tarfa'u darajatan saxiixul albaani saxaxahul albaani naam mbokk yi yenn jaami yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma yàlla doyloo yónni ci askan bi yonent ba yàlla doyloo mu yónni ko ci jaamaam yi yonent boobu de moo ñuy wax bokk na ci message ba ko yàlla jox ngir mu tasaare ko ci jaami yàlla yi moo ñu ne ci xadiisu sahaabi ba ñu naan abi hurayrata radiyallahu anhu nee na yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee nañu <clears throat> man fi baytihi képp ku jàpp laab ba set ci këram nga jàpp ci sa kër laab fa ba nga laab ci mboolem sobe nga daldi set ba nga sell nga jëf jëf ci sa kër jàpp sa kër ba laab sangu sa kir ba laab yonent bi nee na thumma macha ila baytin min buyutillah nga génn sa kër fekk yaa ngi laab yaa ngi set nga dox séq ab jéego utali lenn ci néegu yàlla yi ci kaw suuf si mooy ci jàkk yi nga jubale lenn ci jàkk yi te mooy néegu yàlla yi ci kaw trottoiru suuf si dara yóbbuwul la ci jàkk jooju dara génnewula la sa kër jëmale la ci jàkk yi lu dut lii yaqdiya faridatan min faraidillah ngir joxe lenn ci farata yàlla yi di waxtu farata yi julli loolu rekk la tax a génn yonent bi ne dox boobu ngay dox jéego boobu ngay sëq ci yoon wi di dem nee na kaanat xutuwatuhu ixdaahuma taxuttu xati'atan lenn ci jéego ya ngay sëq di ko jëmale ci julleekaay woowu nee na dinañu far say bakkaar wal axir turfa darajatan weneen jéego bi dinañ la yëkkatil daraja ñu may kota wala bonus ci sa téere jëf hadis bi albani wiral na ko mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñuy wax ci ngëneelu dox dem ci jàkka ji yow mi ko dikkee di ko def xamal ne yaa ngi épargnel sa bopp ay yiw waaye yow mi ko xamul ba tax na doo ko def walla seytaane fàtteloo la ko wala seytaane minimiser loola jëf ju baax jooju jif ju mag jooju ba tax nga sàggane ko mais ñu nopp ci waxtaanu fajar bay jaar fii ci réew mi FM 97.5 ñu ànd yow fas yéene wéttalante ki yow lenn ci la nga xamante ne moom la yonent bi baaxee askan bi ca ngéneel bu mag ba nekk ci dox dem ci julleekaay ba sallallahu alayhi wa ne képp ku set laab lu jàpp ba set laab ba set ci sa biir kër nga daldi génn dox dem ci jàkk yàlla yi te dara génnewul la sa kër dara taxul ngay xuus mbedd yi di dem ci jàkk yi lu dul li yaqdiya faridatan min faraidillah ngir joxe faratay julli ya yàlla faratal ci sa loos yonentu bi ne kaanat xutuwatuhu ihdahuma taxuttu xati'atan tànku càmmoñ bi nga yëkkati di ko siq si ay jéego maanaam tànku càmmoñ ba ngay doxe yenentu bi nee na dinañ la faral say bakkaar wala aaxir tànku ndeyjoor ba ngay yëkkati di ko teg nga di ko doxee moom it turfa'u darajatan dañ la ciy yëkkatil daraja kon mbokk yi ndegem séq ab jéego dox dem ci jàkk ji aller retour dalay faral ay bàkkaar jéego ya ngay séq dox dem ci jàkk ji dañ lay taxa am tiyaabo bonus dalay taxa nga épargnel sa bopp ay bonus quota fa yàlla daraja yañ lay yëkkatil la kon dox dem ci jàkk ji ëpp naa sàggane ëpp naa ñàkk def kon aka neexoon ñay julli seen kër walla ñay sàggane waxtu yu julli ci jàkk yi ñu xam njëriñ ba nekk ci dox dem ci jàkk ji aller kon ndegem aller ci jàkk ji day tax yow jullit bi nga épargnel sa bopp la nga xamante ne mooy yiw yow dut mun a amee feneen lu dut dem bi ngay dem ci jàkk ji aller ndegem sëq ab jéego aréerituru di ko jëmale ci jàkk yi day taxa far bàkkaar bu fekkente ne lii mooy la nga xamante ne mooy jullit bi da koy sëq ngir yàlla faral ko bàkkaar kon dañ ne ñàkk julee ci jàkk ji ëpp naa def ki ñu ko wax mooy keditu wax ci banneexu ba kenn di sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi bokk na ci bi léegi ngeneelu yowmul jumaa ñu ne buur yàlla tabaraka dafa am ñamu woo ñooñu woo ñu mu woo ñooñu ñooy ña nekk ci daairatul imaan bu ñu demee xool ci njeexantalu sabal juma di saar ba nekk ci alquran ñu tuddee ko suratul juma ci njeexantalu saar bi buur yàlla subhaanahu wa moo ngi nii duñu woon importance su bi waaye mu ngi nii du ñu woon njëriñ ba nekk ci bés bi faa'ida ba nekk ci bés bi mu ne ñu a'uudu billahi min ashaytaani rajim yaa ayyuha alladina aamanuu ida nuudiya lilsolati min yowmi aljumcati fascaw ila dikri llah wadaru lbayca dalikum xayrun lakum in kuntum taclamuun fa ida qudiyat alsalaatu fantachiruu fi l ardi wabtaxuu min fadlillah wadkuru llaha kathiran laallakum tuflixuun mbokk yi buur yàlla tabaraka wa taala dafa am ñu mu woo ci yowmul jumaa mu di bésu àjjuma ñoo ñu woo ci yowmul jumaa kon képp koo xamante ne bokk nga ci ña nekk ci daairatul imaan yow yaa am bars bu toll nii yaa war a dem wuyu woote boobu buur yàlla tabaraka wa taala woote keroog ba mu ne yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi gëm yàlla kon képp ku di aji gëm yàlla wéetal yàlla bokkaalewoloog yàlla lenn du sa pas-pas du ci say kàddu du ci say melokaan du ci say doxalin du ci si say sistem de vie nga wiital yàlla ci li feeñ ak ci li ñu ne yaa war a wuyu woote be buur yàlla tabaraka wa woote nii moo tax mu ne ñu yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi gëm yàlla yéen ñi yàlla ci seen pas-pas bu leer yéen ñi bañ a bokkaale yàlla ak lenn yéen la yàlla di waxal buur yàlla ne ida nuudiya lis salaati min yawmil bu ñu noddee bu ñu wootee jëmmale ko ci julli keroog bésu yowmal jumaa hmm? yàlla ne am na lama bëgg ngeen nekkee ko mooy fasaw na ngeen xemmem fasaw na ngeen xër fasaw na ngeen babbeeku ila zikrillah dem ci tudd yàlla bi ñu ne loolu moy julli wadarul bay'a na ngeen tegandi njaay ak jënd yàlla ne lii ma leen tegtal nii daalikum loolu kat mooy la nga xamante ne xayrul lakum mooy li gën ci yéen in kuntum bu fekkente ne xam ngeen la leen di wax ni loolu mooy li mooy bu ñu noddee yowmul jumaa na ngeen tegandi jaay ak jënd ngeen babbeeku am xir am xemmemteef am cofeel bu toll nii dangeen ngeen war a dem teewee ci jullikaay bi yàlla ne loolu ma leen tegtal nii mooy li gën ci bu fekkente ne xam ngeen ko yàlla ne fa ida qudiyati solaatu bu ngeen joxe juli bi ba noppi fantashiru fil ard na ngeen tasaaroo na ngeen dellu na ngeen daldi kenn ku nekk jëm ci fa mu nekkoon di yëngatu ngeen daldi sàkku wursak yeleen yàlla tasal ci kaw suuf si yàlla nee na wadkurullaha kathiran laallakum tuflihun ngeen boole ci di sàbbal yàlla di màggal yàlla di tudd yàlla di fàttaleku yàlla yàlla ne nu ngeen ko gën a defee mu gën a bëri bésu yowmul jumaa loolu da leen di taxa fàggul texe bi nga xamante ne ci loolu ngeen koy amee moo tax buur yàlla ne fa ida qudiyati salaatu bu ngeen joxee julli bi ba noppi fantashiru fil ardi na ngeen tasaaroo ci kaw suuf si wabtaxu min fadlillahi ngeen sàkku ngenil baleen yàlla tasal ci kaw suuf si wadkurullaha kathiran waaye na ngeen baril na di tudd yàlla yàlla buur bi tabaraka wa taala nee na laallakum xëy na bu ngeen nekkee anam bi ma leen joxoñal nii ah tuflixuun di ngeen bokk ci ñu texe ñi kon ndegem tëralinu yàlla ci bésu yowmul jumaa joxe ko meloo ko nekkee ko day taxa fàgguloo julit bi texe bi nga xamante ne moom la noddkat bi di wax ci biir noddu bi hayya alal falaax kon falaaxatul insaan texe doomu aadama falaaxatul muslim texe jullit bi doo ko amee ci fenn fudut fala yàlla ne fii ngay jaar yonentu bi ne nii nga fay jaare ndegem tegtaloo nga ci noone a ah, amaana laalla allahu sa yajcaluka min al muflihin amaana du ñàkk buur yàlla boole la ci way texe ñi ba tax na yonent boobu sallallahu wa sallam bokk na ci message ba ko yàlla jox ngir mu partager ko xeet wi ci xadiisu abi hurayrata radiallahu anhu ba abi hurayrata nee na anna rasulullahi sallallahu alayhi qaal naka suñu yonent bi di ar rasulul mustapha alayhi afdalu wa azka taslima daf ñu ne xayru yowmin talaat fihi shams yowm al fiihi xuliqa aadam wa fiihi uhbita wa fiihi taabat alayhi wa fiihi maatat wa fiihi taqumu saa'a xadisun saxix axrajahu albani fi saxix abi daawud mbokk yi yal na jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot ki yàlla doyloo mu yónni ko ci xeet bi di ar rasulul mustapha alayhi afdalu salaatu wa adka taslima ba léegi moo ñu baaxee ci xadisu abi hurayrata radiallahu anhu abi hurayrata nee na <clears throat> naka suñu yonent bi di ar rasulul mustapha alayhi afdalu salaatu wa adka taslima moo ñu baaxee nañu xayru yowmin talaat fihi shams yowmul jumaa bépp bés ba ñëw jant bi di si fenk gën si bés yooyee mooy bésu àjjuma bépp bés ba jant bi di si fenk bés ya ci gën mooy yowmul jumaa mooy bés ni ki tey jii nekk nii bésu àjjuma ci gën yonent bi nee na fiihi xuliqa aadam suñu maam aadam ci bés bi la ko yàlla bind wa fiihi uxbita nee na bés yowmul juma la suñu maam aadam wàcc ci kaw suuf si wa fiihi taaba alayhi bésu yowmul jumaa la ñu nangul tuub ba tuub la ko yàlla nangul tuub bi bésu yowmul jumaa la suñu maam aadama tuub ci bésu yowmul jumaa la ko buur yàlla nangul tuub ba tuub maanaam bisu yowmul jumaa la yàlla nangul suñu maam aadam éréel bi mu defoon ci arjana ba mu tuubee bisu arjuma lañ ko nangul tuubam yonent bi nee na wa fiihi maata bisu arjuma suñu maam aadam faatu wa fiihi taqumu saa yonent bi nee na bisu arjuma la bés pinc di taxaw xadis bi hadisu saxiix ki ko génnee mooy axrajahu albani ci téere bi ñu naan abi daawud radiallahu an mbokk yi ba léegi yéen a ngi fàttaliku ñu ngi àndoon nag mbokk yi lenn ci waxtaan ba ñuy yóbbante député ya ñu toggal ci pencum ndaw réew mi ba ñu teg ko ci kaadaru addinu nasiha diine islam ba ñuy dund kat diine laayante biir la ba tax na ñu di leen di laayee biir leen ci xadis ba nga xamante ne mooy la yonent bi baaxe sallallahu alayhi wa sallam nee nañu li kulli muminin arbaata aadaa muminun yaxsuduhu wa munafiqun yubgiduhu wa kaafirun yaqtuluhu wa sheytaanun yudilluhu jëlee nañ kàddu gi di suñu imaam di suñu sëriñ imaam kabiru gay masjid front de ko yàlla sàmm aar ko xafisahullahu waraahu mbokk yi xam ngeen ñeenti noon yi nga xamante ne ñu ne jullit bu nekk moom la làmboo ñeenti noon yooyu nañ leen bokk xool ba xam noon yooyu ñu ngi ñun walla nekku ñok ñun boo ko xamee boo ko xamut ñeenti noon yi ñu ngi kenn ku nekk ci ñun waaw moo tax mu ne li kulli muminin way gëm yàlla bu ne julit bu ne am nga arbaata aada ñeenti noon julit bu nekk ñeenti noon kat noon waaw ñeenti noon ñooy lay ràng ñeenti noon ñooy ànd yow ñu di la géema faxastal nee bu ci jiitu mooy muminun yaxsuduhu jullit ba gëm yàlla ni yow waaye amul dara la muy jëflanteeg yow mi di jullit ba gëm yàlla ni moom lu dut mu di la iñaane moo tax mu ne muminun yaxsuduhu jullit ba gëm yàlla ni moom da koy iñaane nga doon jullit ba gëm yàlla waa ji di jullit ba gëm yàlla waaye dalay iñaane sa nekkin dalay iñaanee sa moomel muy ci góor muy ci jigéen léeg-léeg nga gis jullit ba ne yee jullit la waaye xol ba mu am ci biir dënnam xool bi daal daa fees dell ak soxor ki iñaan mu di ko jëmale ci mbokk jullitam moo tax mu ne muminun yax suduhu jullit ni yow léegi-léegi mu jëmale lay iñaan bu toll ni dangay naan déedéet xanaa kii du julit te moo ne jullit la de waaye yàlla ko nattoo mu yore xolu kiñaan ba muy jëmale ci julit ñi mel ni moom waaw ñaarel bi mu ne ñu wa munaafiqun yubghiduhu naafiq boo xamante ne moom dalay mere toujours saa yum la gisee xol bi day bon dalay mere waaw boo defee lu baax sax mu gis ne dangay ngay boo defee safaan ba mu ne ñaw waaw moom kañ moom saa yuñ la tuddee mu mer saa yu mu gisee sa jëf ju baax mu mer saa yum la gisee mu mer moom kañ saa yum la gisee moom day mer ci biir xolam xol bi daal mënut laa digérer te moo ne naafiq la waaw kañ naafiq balay mere saa su ne waaw nee na bokk ci noon yooyu wa kaafirun yuqaatiluhu mooy yiifar boo xamante ne moom saa yum la gisee moom day bëgg xeex ak yow walla dalay lay bëgg a faagaagal xaa léegi-léegi sax mu àgg ak yow ngir mu faat sa bakken sax daka kay jaral waaw yiifar ba nga xamante ne moom daal saa yum la gisee xeex ak yow lay bëgg wa illaa mu jël sa bakken wa illaa mu teg la coono boo xamante ne kenn du xam la tax mu di la ko tek moo tax mu ne ñetteel bi wa kaafirun yéefar boo xamante ne yu qaatiluhu day nangoo am ak yow confrontation confrontation yooyu mën na nekk mu xeex yow confrontation yooyu mu di la yéene mun naa nekk mu faat sa bakken confrontation yooyu mu di la yéene mun na doon mu leb sa bakken moo tax mu ne wa kaafirun ab yéefara ngi nii ba léegi dafa bokk ci noonu jullit woowu yu qaatiluhu ku koy nangoo song kuy fas yéene song jullit boobu ngir xeex ak moom wala mu leb bakkenam wala mu jëlee ko ci kaw suuf si waaw bokk ci noon yu mujj yi wa cheytaanun yu dilluhu seytaane bi nga xamante ne da koy nangoo sankuloo réeral ko jëlee ko ci yoon bu jubbi yóbbu ko ci yoonu ndëngte waaw seytaane boo xamante ne moom daal du la wax li alquran wax du la tegtal la alquran tegtal du la bàyyi nga xeeñtu ci njàngale yenant yi moom daal day ñëw mu di la rafetalal say jëf moom la alquran doon junju mu ne fa zuyyina lahum cheytaanu amalahum cheytaane daal moo ñëw rafetalal len sini jëf ba ñu nekkee di ko jëf ci diine nee nañu dañuy jaamu yàlla ci loole wala dañuy roy sunna yonent bi ci loolu ñu nekkee waaye fekk ne loolu ñu nekkee kat maa anzala allahu bihi min sultaan buri yàlla wàccewu fa lenn loo xamante ne fa la ñuy tegtaloo ci la alquran joxoñ wala lañuy tegtaloo ci la yonent bi jàngale sallallahu alayhi wa sallam kon yow jullit bi boo ko xamee ak boo ko xamul xamal ne kat ennemi nga yore si sa dund ba ngay dund ennemi bu njëkk bi mooy mu ne li kulli muminin jullit bu nekk arbaatu aada am na kat ennemi am na ñeenti noon noon bu jiitu mooy mu'min yaxsuduhu jullit ni moom da koy iñaane jullit balay iñaane ci lépp te moo ne jullit la niyow waaye xol beeg xel bi daa fees dell ak xeetu kiñaan wa munaafiqun yubghiduhu ak naafiq boo xamante ne dalay mere waaw bu déggee sa tur mere bu déggee sa sant mere bu gisee la nga liggéey mere la moom daal waaw tey jii am na koo xamante ne buñ ko tuddee si pénc bi rek am na ñoo xamante ne duñ ko mën a digérer seen xool daal di am la mu nekkee nee na kooku naafiq la boo xamante ne dalay siiñal di la wone ne mook yow la di la won ne mook yow a far waaye nag saa yu mu déggee sa tur wala mu gis la nga liggéey walla mu gis sa nekkin fenn mu daldi am xol bu mer xol bu tàng ci biir dënnam kooku mooy ñaareel bi moo tax mu ne wo munaafiqun ab naafix bi nga xamante ne yubghiduhu dalay mere waaw mu dalay mere rek te defoo ko dara li tax mu di la mere moom daal dalaa bañ rek bu déggee sa tur mer bu gisee sa gif mer lu mu gis nga nekkee ko mu daal di mer ñetteel bi mu ne wa kaafirun yuqaatiluhu yéefar ba nga xamante ne moom daal day bëgg saa su ne muy am ak yow confrontation waaw mën naa laa yéene ngeen xeex mën na laa yéene sax mu rey la lépp sa bakkan kooku kaafir boobu yéefar boobu mbon ba nekk ci xolam mere bam la mere dina àgg ak yow ci melokaan bi ñeenteel bi mooy seytaanu yudilluhu seytaane boo xamante ne dalay réeralal dalay sankuloo jëli la ci leeru yàlla jëli la ci njàngale yonent bi yóbbu la ci mbooy mi nga xamante ne doo am dara lu ngelaw su ko defee jullit bu nekk uh, war naa muytu lii mbokk yi lii mooy la leen Rewmi FM 97.5 andil ci waxtaanu fajar bi saa ilina mawla jalla wa ala an yajalana min allazina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana waxtaan bi jeexut dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñuy joxe xibaar ñu ngi nii taxaw ñu war leen jëbbal béréb bi ñu ñaan yàlla suñu borom lu jub si kàddu gi ñu santee ko borom bi lu si dëng ñu di ko jéggalu ñu ñaan yàlla suñu borom yan ñu buur yàlla boole jéggal amin ya rabbal alamin di leen wax ne jumaa tayba mubarak allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha fa ni'mal mawla wa ni'man nasir